Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk ñu ngi leen di gërëm leen sant gërëm euh, képp koo xam ne à travers la planète mooy euh, suñu émission gëstu bés gëstu bés bi nag ñu ngi ko jëmale tey su le conseil présidentiel boo xam ni ñu ngi koy jëmalee si mbirum napp di ko waaje bu baax euh, le mois de mai euh, ki ko wax mooy le président de la République Macky Sall jël na dogal pour convoquer le conseil présidentiel boo xam ni lépp lu ñuy waxtaane mooy mbirum napp Sénégal yi bare mi jooy muy nappkat yi ñëw si mbirum pêche muy UNAPAS muy COLIPAS euh, ñëpp le ministère de la pêche les partenaires sociaux les partenaires au développement mooy nappkat yi muy suñu mbokk yi nekk fépp muy Sénégal ak li ko wër képp koo xam yaa ngi yëngu si mbirum napp ñuy waajal conseil bu mag yéen yéen a ko moom Euh, conseil présidentiel boobu xam ne njiitu réew mi woote na ko lu am solo la xam ngeen ni Sénégal dëkku jël la boo ne Sénégal sa fay sa xel dafay dem suñu mbokk lébu yi di fàttaliku euh, géej gi yàlla defoon na fi ay jamono euh, sutura bu mot sëkk jën daaw fi manqué da nga daan toog sax may fàttaliku bi ñu nekkee xale ngay romb buntu booru géej sax ñu lay sëñ bi kaay yóbbaale jën di kër loolu lu réeré woon fi diwaanu Sénégal Sénégal yaa ngi jaay ñi ngi jooy fépp boo demee marché central au poisson nga dem ba si tefes gi fépp foo dem géej gi dafa gën a nasaxal dellu ginnaaw euh, jigéen yaa ngi jooy guddeeg bëccëg muy mool yi muy euh, tout tànk yi léeg nga dégg nit dem na nappi ñu toog semaine ñeenti fan juróomi fan kenn gisu ko gaal gi ne fes suuf biir géej gi loolu mooy ñàkk jumtuwaay moo doon ko wan ko yàgg nañu wax suñu mbokku pêcheurs yi ñuy faral di takk gilet gilet boobu nag moom moo lay aar dem ba ñëw doom benn gàllankoor mais ñoom lu ñuy ŋañi les bateaux étrangers bateaux yi nga xam nag ñooy teer si géej gi fépp foo dem douane Sénégal li naan les accords de pêche yoo xam ni dañ ko xaatim ak Sénégal diggante ak Sénégal ak Union européenne euh, gaal yu bare ñu teew suñu géej gi foo dem tey Sénégal yaa ngi jooy mooy suñu mbokk nappakat yi nga dem Ndar tey boo demoon tey euh, jege géej gi Mauritanie rek nga am euh, jafe-jafe suñu mbokk Mauritanie yi ñu comprendre baa ñu dóor la fital baa ñu buntu xatal la indi la ay gàllankoor ak ay jiixi jaaxal loolu du yoon diggante Sénégal ak Mauritanie nekk na diggante bu mucc Sénégal ak mu musuñu am problème kenn ñaanu yàlla ñaar yooyu am problème tey suñu nappkat yaa ngi dem ba biir géej Mauritanie léeg-léeg Mauritanie yi dugg dans le territoire loolu dafa nekk loo xam ni ñoo bokk ndey ñoo bokk baay nañ moytu fitna yi di woo président Sall mu jël ay euh, décision jël ay matuwaayam que conseil présidentiel bi ñuy woote le vingt-deux le mois bi mai bii di ñëw war a nekk conseil bu jaar yoon bañ am benn euh, jafe-jafe euh, dafa war a woo tous les acteurs de la pêche woo toutes les structures les ONG les partenaires képp yëngu si mbirum napp rek war nga dem wuy ji euh, njiitu réew mi ñu mën toog saafara géej gi nga xam ni day gën di dellu ginnaaw day gën di nasaxal ñëpp a koy jooy jën manqué na ma bamtuwaat ko mbuur léeg-léeg nga gis ni ngi di manifesté wu Soumbédioune Euh, fële yaraax nappkat yëpp ngi Sénégal dëkku jël la euh, boo xoolee Afrique bi yëpp suñu géej gi macha allah musul manqué jën mais li ñu gis tey gën di jéggi dayoo di aussi ñi nga xam ñoom ñoom ñooy ñooy yëngu si biirum pêche ñu ànd ak yar ànd ak dal incha allah le président Sall am na yéene am na passe-passe woote le conseil présidentiel euh, pour une importance sur la pêche war a nekk bés bu mag bés boo xam ni c'est historique lan la pêche au Sénégal pêche nag boo xoolee bari nay gàllankoor am na ñoo xam ni amuñu moyen pour dem pour dem nappi am na ñoo xam ni amuñu moyen euh, amuñu ay moteur amuñu ay gaal yoo xam ne dañuy dem ci jën boo xoolee yenn nag yenn peche yoo xam yenn nappkat yoo xam ni dañuy góorgóorlu rek si boobu tefes gi ñoom yàgg nañ ko jooy devant le ministère la pêche di woo aussi le ministre Aliou Ndoye moom lañ la dénk géej gi ak napp gi euh, war na toog euh, euh, nappkat yi war leen jox seen gëdd war na toog di waxtaan ak ñoom di organiser léeg-léeg ay séminaire ay forum ay campagne de sensibilisation pour rek sauver géej gi nga xam nag ñu ñëpp ñoo ko bokk. européens tamit leen woo ñu respecte seeni contrat yi nga xam moom la ñu xaatim avec le gouvernement sénégalais di woo suñu mbokk chinois yi étrangers yi. ñëpp a si géej gi di def lu neex loolu dëgg du yoon ma ne nañ ko seetaat bu baax nañ ko gën a saytuwaat que géej gi ñu ñëpp ñoo ko bokk. yow aussi le président Sall am na yéen boobu mu dégager ay solutions des perspectives d'avenir pour renforcer et euh, doter des moyens logistiques ak euh, euh, financiers euh, concernant la pêche. ce conseil présidentiel du président Sall woote dañuy ñaan yàlla. mu nekk conseil bu jaar yoon bañ a euh, nekk conseil de fitna proposer euh, suñu mool yi pêcheurs yi acteurs yi euh, experts yi ñëpp nga xam ni c'est des experts si mbirum pêche ñoom tey war nañu bay seen waar dugal si seen loxo jàppale suñu mbokk nappkat yi loolu bu ñu ko defee Sénégal raay bi na teguwaat si yoon mais raay bi ñu gis bu ñu ko teelul defar rek dafay gën a indi. ay mbosóor si wàllu pêche pêche lu rëy moom lañu yaakaar mooy dundal yenn euh, pêcheurs yi dundal yokk suñu koom-koom yokk mooy yokk suñu économie te boo demee tey euh, ba si suñu dëkku séeréer yi ba si àll bi partout nit ñaa ngi jooy ñu moyens yoo xam ni nañu mën a euh, sauvegarder ak renforcer seen mbirum pêche encore une fois de plus gëstu tey bi loolu mooy jëmale ko si le conseil présidentiel axé sur la pêche bi nga xam ne Euh, président Sall bu mu koy wootee avec euh, le ministère la pêche et tous ces acteurs yoo xam ni ñu ngeen yëngu si mbirum euh, ñu ngi yëngu si mbirum napp parce que géej gi yàqu na di gën a góorgóorluwaat war Sénégal yi woo suñu mbokku pêcheurs yi incha allah président Sall ak gouvernement am ñi ngi waaj a préparer ay solution yu jaar yoon yu mucc ay xam ni ëllëg dootuñu dégg ay jafe-jafe si mbirum napp yi fii ci wàllu Sénégal tey moo tey. dañ doon rénové suñu gëstu bés bi jëmale ko si napp bi xam ni indi ay jafe-jafe euh, fii ci wàllu Sénégal ak réew mi dañu gërëm leen sant ci présentation bi Cheikhou Sakho mbokk yi jaa ngeen jëf ba beneen yoon incha allah.